wenn fen wi mooy projet amul wenn benn benn fen bi mooy euh, nu mu tuddati le le népotisme le népotisme est encore là wenn fen wi mooy mi ngi sama kii xam nga tudd naa ko naa ko kii léegi. nee na fen fen dafa yàlla gërëmu ko kenn gërëmu ko booy fen doo nekk imaam booy fe booy fen mënoo nekk mënoo jiite jiite julli booy fen. ma doyoo doyoo nu mu tudd euh, kenn du la jël seede booy fen booy fen nangam nangam tey Ousmane Sonko day fen waaw xam ngeen fen Ousmane Sonko fu mu ko commencé ci les 94 milliards de Mamour Diallo il faut que ñu xam nit ñu xam nit ñi ma ne maa ko wax fii mu ne Ousmane Moussa Ba mag la waaye nag day mag mu réew boole ca coxor jàpp leen ko ma maa ko wax demal muudi mag la mu réew boole saa ko coxar dafa soxor bañ Ousmane Sonko ba taal défendre Ousmane Sonko je défends la vérité waaw comme nee na Ousmane Sonko day fen an ana moom tuuti rek ci 94 milliards yi nee na ca foofale la day fene ma won leen fi tuuti ndax danaa ko gis waay kooku moom il faut que ma jàngal leen ah affaire des quatre-vingt-quatorze milliards fa la njëkk ne day fen day génn li ñu tuddee devoir de réserve li ñu sukkandiku ba dàq ko day fen 94 milliards Mamour Diallo yi ba mu ko defee Ousmane Sonko da ko yóbbu procureur mu no mu yóbbu ko ci juge d'instruction juge d'instruction yor koy weer defu ko mu ñëw mu ne ko amuloo sañ-sañ porté leen foofu mu yóbbu koof nag 94 milliards dem day fen déglu leen léefu nag wax l'OFNAC à déposé entre les mains du chef de l'État ses rapports nangam nangam et cetera dans sa plainte déposée le 10 avril 2018 à l'office Ousmane Sonko évoquait des faits supposés de transactions immobilières irrégulières et de détournement de deniers publics portant sur un montant de 94 milliards et quelques. Après avoir mené ces investigations, l'OFNAC a relevé des entorses à la procédure régulière, entorses qui pourraient penser à une volonté inavouée de fonctionnaires concernés euh, de tirer le maximum de profit de nangam nangam ak i nangam ma wax leen nag li ñu gën a wax nag madame Seynabou Ndiaye Diakhaté booba mooy présidente moo remplacé na fi Ngom Keïta madame Seynabou Ndiaye Diakhaté et ses collègues estiment que les infractions suivantes étaient retenues contre monsieur Mamour Diallo président nag ak ñi màndal nee nañu retenir nañu <coughs> infraction yii contre Mamour Diallo déglu leen de association de malfaiteurs fait prévu et réprimé par les articles 238 à 240 du code pénal jeexut de escroquerie portant sur des deniers publics, fait prévu et par les articles 152 à 154 du Code pénal. Jeexut de tentative d'escroquerie portant sur des deniers publics, complicité d'escroquerie portant sur les dossiers politiques. Voilà ce que l'OFNAC a dit à propos des 94 milliards. Ousmane Sonko fenn mu ni ca ca loolu lañ jaar <coughs> ba waaw léegi day kii day euh, euh, devoir de réserve devoir de réserve amat daanaka amatul amatul solo ma wax leen ko vous jeune euh, reporter devoir de réserve boo nekkee ci ci am na yoo xam ne c'est des war waroo ko génne waaye dafa am ay loi yu teg ay convention convention des nations unies pour la lutte contre la corruption convention de l'unité africaine pour le même objet protocole de de de, de la CEDEAO même objet également lutte contre la corruption code de transparence de l'UEMOA qui a demandé à tous ses membres de ñu dugal code de transparence boobu nañ ko dugal ci seen loi interne seen loi bopp le 27 décembre 2012 ñu wote loi portant code de transparence dans la gestion des des finances publiques maa ngeeg loi bi waaye mënuma leen ca wax lépp waaye xam ngeen wax la ko jiitu constitution dafa insister les citoyens ont droit à l'information sunu xaalis bi nu lu leen nu neenu daj ko ci fu nuy dugg nañ ko war a xam at mu jot loi bi dafa wax ni fi bi toll ak yépp fañ ko jaral yépp état bi da ko war a expliquer peuple bi danoo war a xam constitution loolu la wax danoo war a xam convention yii ma leen wax ñoom ñépp dañu insister sur la nécessité pour les citoyens de comprendre dañoo war a xam rawatina loi boobu loi bi dafa ne boo nekkee ci kuréel kilifa ga nekk fa di def naka sa du noona nga xam ko noppi ca bu feeñee tu es waaye nag si tu prends dem fa nga ko war a wax bu ñu ñëwee saytu ko muy dëgg muy nàngami xaalis danañ ci jël nàngam neexalale ko loolu la loi wax de Ousmane Sonko dañ ko waroon na neexal xam nga lu mu lu mu doon dénoncé yu mel ni 94 milliards yi ak les exonérations fiscales évidemment journaliste yi du ngeen du ngeen d'accord man toujours ndax lii xew ak loola man se ça c'est pas mon problème mais li li li kii laa leen wax exonération yi ñu daan def ku war a fay cent milliards nga ñëw waxtaan ak moom jubóog moom ba ngeen dem ci cinquante milliards mu jox la vingt milliards yee fay trente milliards walla ku war a fay cent milliards nga def ko exonération totale Amadou Ba def na ko fi Sonko taxaw assemblée nationale wax ko jox ko détail yépp ne ko yow wóor na la ne amoo ci droit parce que exonération fiscale boobu du yow c'est l'Assemblée nationale rek moo ko mën a autoriser ñu ne génn na devoir de réserve loolu da lañ ko révoqué on l'a révoqué dans des condition illégales <coughs> illégales donc mu jóge ca gis ngeen Karim Wade Karim Wade enfin mais man voilà buñ ne Karim Wade day ñëw sax léegi léeg dafa may defi ah dégg naa ca keneen ku ne li tax du ma déglu débat yi démb bërki démb depuis da ko wax ak certitude waaw man fu mel ni Karim Wade par exemple c'était le meilleur ministre de son père ba ñu tuddee ko ministre du ciel et de la terre